laaj dafa xëy samp tey ci turbine yéen kaay mooy ban façon justice la ñu am ci réewum Sénégal mbaadu justice boo xam ne ku ñëw nag daal di lay xeexal jël say ñoñ laq jël ña àndul ak yow di tëñ-tëñal yéen kaayub dee média bi naan man mbaadu gouvernement des juges am fii ci réewum Sénégal ndax barki démboo njaay moom justice su réew mi moo jël ñenn ñu tëñ-tëñal leen taxal daal di salfaañe gannaaw président Macky Sall nag mbaadu nag justice boobee nga xam ne moo doon jàpp jàppale sàll ci jàpp gaay yi xañ leen jant beeg yàqaate leen mbaadu justice boobee tey jii moo nekk ci service projet bi même procureur de la république mbaadu nag mooy tëj ak di tëji ngir sonko vox populi naan maan APR en tout cas fi mu nii coowal dictature la ñuy waxtaanee ci réew mi bés bi le jour naan maan coow lépp nga bàyyee koo ci jàpp baa jaate le point ak ci naan kon coow loolee fi mu ne daal dinay déclenché geneen coow ci réew mi muy nag APR mi nga xam ne sulli doon fas yéene koo ñaabar ñaabari goral Pastef ndax nee ñu nag Pastef ci boppam vivre ensemble bi am réewum Sénégal neex looloon bëgg soppi xeex bés bi la jour naan ko déet fi mu ne kay coowoo moo am diggante APR ak Pastef moom APR nag ma ngay sàkku daar daar ñu libéré nu mu gën a gaawee activiste bi Abbas Fall naan gouvernement bi ci boppam moo war a déclencher ay poursuite topp ña nga xam ne ay wuyuk APR lañ jël alalu askan wi sàcc ko teñ ko def ko Seydi Gafa maître Amadou Sall avocat ba jaxate naan joxe nay preuve de attention ba joxe nay preuve l'observateur naan ko déet ban preuve ba kay dafa ne ab lanceur d'alerte la ci lanceur d'alerte nag la daw làqu fi mu ne source a naan maan fi mu ne dañoo bëgg sauver seen activiste de waaye ab gat sa gat sa salon la waa APR woote léppooy ak naan kon moo ne woote ab combat de ngir nag libération seenub activiste nu mu gën a gaawee direct news naan koon waxtu mbir mi daal ma ngay gën a tàng gën a métti ci peggu président Macky Sall pétition ci boppam la ñu lancé ngir président bu Sénégal ba ñu jàpp que ñaabar ñaabareeg moom andi si mi par force ndax nag mënuñoo comprendre naka la nekkee moom président Macky Sall chefu lépp waaye tam nekkul responsable ci dara pétition gii nga xam ne nee ñu ngir ñu jàpp Sall ngaari lam tooro Bourguédé ne la lu toll ci ñetti junne juróomi téeméer ci doomu aadama xaatim nañ ko ci benn fan pétition boobee di naqarlu crime yi nga xam ne am na ci réewum Sénégal di ay crime politique ak économique te Sall def ko ci réew mi mu ne fàng te kenn faju ko caxat-caxatee gindoon caxat-caxatee doomu aadama yi di leen fitnaal di leen dóor ak di leen tëj di leen manque de respect ñoom sénégalais yi sénégalais yi nga xam ne daanaka Sall ñoo ko def ni mel tey yéen kaay bi naan leen attention lijjanti leen ba noppi lan protocole bu Cap Manuel bi ndax nag ñenn ci ñooñu président Macky Sall jàpp nañ ni moom daf leen sacrifié fa yàllaahu waxtu woowu réew mi ko di xamal ma ne moom président Bas moom ma ngay doxal ca lañ ko fal yéene kaay bi naan maan basa ngay rogo jeeru soxna yi kay sànni na leen ab caxabal ab piis su ndaw naan leen wàllu promotion économique ak social waaye tam soxna moom ca gël gu yam ci réew mi ci lii laa ne 24 heures yéene kaay naan maan waaye tam ñoŋal càmm ji Bassirou Diomaye Diakhar Faye ma nga ca Le Quotidien Le Quotidien naan ko moom Ousmane Sonko waxtu woowu ma nga fas yéene scanner nag ay jëfuk président Macky Sall diggante budget janvier 2019 ba 31 mars 2024 lii la Ousmane Sonko ne nan ko càmbar xool Sall daal lan ko dénkoon naka la ko yoree laas yéene kaay naan maan waaxu na moom Sonko jëm nag ci récupération bu patrimoine foncier ak bâti bu état bi nga xam ne yenn ci ay privé lañ ko jébbal ci anam woo xam ne baaxul jaar jaarul yoon l'observateur naan kon du yomb de la ci biir lool lépp ma ni la dëgër na këte mooy li nga xam ne du yomb waaye tam coowal finance publique bi lañ ca dal ñun réewum Sénégal dara seddu ci salaire yaa ngi yokku intérêt yi ñu teg ci bor yu ñu yoreel bitim réew it mi ngi fii waaye boobaak léegi benn koppar bàyyeekuwul bitim réew diggante février ak mars bi dugg ci gafak Sénégal vox populi naan waxtu woowu moom nguur gi day nee na yenn ci convention yër rek secteur hôtelier bi waaye tam contrat yi ñu amaloon ci napp gi état bi nee na faw ñu saytu leen mooy dëgg l'enquête quotidien naan ko déet moom nguuru Sénégal kay dafa lépp lay toj rajax waat saytu gi de A à Z deux minutes pour lire l'essentiel mel ni ku naan maan saytu gi nañ ci boole Air Sénégal compagnie boo xam ne daanaka juddu wew faatu la ëllëgëm moom daanaka dañ koy dégg rek diggante A319 ak A321 yi mu fasoon yéene concurrence Delta mu sell mi far yàlla teel faatu moom assistance au sol bu Air Sénégal boo xam ne màggat ba jéggi dayoo ñàkku kaaraange gaa yi di ko joytu ka nga xam ne ma ne la mooy pilote bi gën a xarañ ci àddina bu ñëwoon ci Air Sénégal daanaka ñu xeeb ko Sud Quotidien naan kon li ñuy xeebe réewum Sénégal a bari wala xeex biñ ne woon dañ koy xeex sachet plastique yi furaas échec bu rëy la ci réew mi tribune naan koon waxtu woowu nag taxaw gi nii taxaw ñu am wopp roñoo des lool ci réewum Sénégal ba ñaxtu man daanaka mafia la rek président bu mouvement national bu dialysé bu réewum Sénégal daal dinay génnee mafia gi nga xam ne daanaka raxas deret lañ leen doye woon ñu jàpp nag deretu jalise yi di muucu Cissé Sarr xam le ni ab business la buy làqu ci ginnaaw traitement yi ña am woppuk réunion ñu leen di defal dialyse ñi ngi dund jaxannama goo xam ne faatu gaa ngi mel ni tulleeg maale ci ñoom ñi nga xam ne ñooy def dialyse moom Cissé ci yéene kaayub dee média bi ne bees bi ne ci ginnaaw tax na weeru yàlla sàkk daanaka lu toll ci ñaari junni ci ñoo xam ne dañoo am woppug jalis di faatu ci Sénégal ñaari junni laa ni la ci ñu am woppug roñoo di def jalis ñi ngi faatu ci réew mi bal tàkkul sagar xeeñul ñu dëgg ci tànk waxtu woowu ñu ne générateur yi mi ngi fees dell ci réew mi terewul moom malade yi moom dañ leen bàyyee seen bopp daanaka yenn professeur spécialiste ci wàllu néphrologie xooluñ leen sax si seenaan coowal jalis gi nan ci wax ma ne nan di ñaaw ndax nag ñi nga xam ne ñoo am wopp googee ci réewum Sénégal day li ñuy dund daanaka nit sax waru koo yéene ab noonam Sud Quotidien ci point de vue mel ni ku naan daanaka réewum Sénégal day dañuy bàyyi priorité bàyyi la nga xam ne moo nar a jëmale kanam di dugg nekk ci débat yoo xam ne amut bopp amut génn xam ngeen débat boroom ñaari tur yi nga xam ne waa bitim réew ñooñu ko bëgg imposer ngir ñu wax ci ñu ciy tardeel suñu bopp loo xam ne diine bëggut du benn nag am na ñoo xam ne seeni société bëggul amul mm. débat boobee ñu bëgg ko taxawal ci réewum Sénégal bitim réew ne par force Sénégal di ngeen ko waxtaanee ñu nit Sénégal ñàkk xam tax bañ ci waxtaan par force fàtte ni ma ni la priorité ci réewum Sénégal day ma nga feneen te sakkan lool tribune yéen kay naan kon jàppal ñaara ngi bës bu yàlla sàkk juróomi bakkan daal di rot diggante Mermoz ak Malika lépp nag bàyyeekoo ci ay nit yuy lab ñu joxoñ ci baaraam ak tuuma sunu njiit ak waajur yi beneen bi moom moo di Ndakaaru nga xam ne xat lool désencombré capital bi mel ni grand bazar ñu cay xaar njiiti nag ñu tàqali ñu ak moom leef yéene kaay naan kon déet waxtu woowu kay ma ni la sunuy ndaw ñi ngi jëfandikoo xeetu tux gune ne loolu it priorité la di professeur Abdoul Aziz Kassé si yéene kaay bi dem ca lycée Birago Diop ak Jean Mermoz wan xale yi nag tux mu mitti mi ñu nekkee naka la mën a yàqee seenu wér-gu-yaram ndax xam nañ xel ni ñoom ñiy jaay xeet wi niy tuxee la ñu doon am bitim réew ca nasaraan sa wàññeeku na daanu si nan ci Afrique jaamaarloog suñuy ndaw nag fas leen yéen a yàq tey yematun ci tux mi ab drogue bu nu woowee zombie la ñu tàmbalee jaay ci bitim réew yegseegul Sénégal waaye bus bi fi yegsee làmbaay ñaaw laas naan kon diggante chicha ak pëf lii day wër na ndomb suñu ndongo yi l'observateur naan kon dafa mel ni suñu réew ci boppam ak jikko yi moo tàmbalee nag suppiku ca derkle gii xeexoo lañ fa def ci jullik fajar ga imaam ba nga xam ni moo waroon jiite ñu jël ay ceinture di ko ceinturer dàq dàqee ko ca jumaa ja ni ko doo jiite coow la fi mu tool nii ma nga ca tribunal ñuy àtte ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yandoog jàmm